ne ñëw ngir nemmeeku jumaa ji nga xam ne ñun bokki taaliba yépp ñoo fi ñëw fi ngir defal ko Serigne Touba. ne bi ñu tàmbalee liggéey bi boobu ak léegi léegi moo am ab diir waa yàggul noonu nag fa tabaar kalaw tey ñu fas yéene koy inauguré. ne ñu àndoon ko Serigne Saliou Mbacké ne ñu nekk ci nag ne amoon na plan yu bari ne ba Serigne Saliou ne mu tànn ci plan yooyu yëpp benn plan ne yàlla dogal ñun taalibe ñu jublu ci nee man ak samay morom nee ñu jàpp ci liggéey bi nee di ko liggéey nag ba tey yàlla dogal mu sotti ne sëriñ bi jàppoon tey jii fa tabaarakallaaw ñu war a jublu àjjuma ngir inauguration bi ne jumaa nee comme niñ ko waxe nee jullit yëpp ñoo ko bokk nee du murid yi rek ñoo ko moom de nee waaye nag yàlla dafa dogal ne dañ koo jagleel maam Cheikh Ahmad Bamba nee moom mi nga xam ne moom la ñu gëm nee man nag maa ngi gërëm yàlla nee ci ah fa sant yàlla bu baax ngir ñi ko tàmbali woon ci laa bokk. nee may gërëm yàlla ci bi ma mayee kartan fa kàlla ba ma fekke mën a gis bis bii nga xam ne moom lañu war a inauguré Massalikul Jinaan nee xam naa ni sëriñ bi yaakaar naa ni sa xol sedd na. ne ñun talibé daal ñoo ngi taxaw buñ ci amé dara luñu wara jubanti nga wax ñuko rek ñu taxaw ci ne ndax kat ñun sa banex rek lañuy wut ak lu bax lu rafet ne ak lu mengo ak bëgg-bëgg maam Cheikh Ahmad Bamba ne amul lu rafet nee ba weesu Seyduna Muhammad sallallahu nee weesu maam Cheikh Ahmad Bamba nee moo tax ñun bokki taalibe yi lépp lu ñu def xeeb nañ ko nee maa ngi lay wax bisimila nee ndax yow yaa wax ne nee man maa war a dalal gan ñi nee yaa ko wax de ne lolo tax tay madila ma di dalal ne di bal dalal sama mbokki taaliba yeb ne di len xamal ne ne la ci bëggoon ne muy juma ju doon juma ju muccu ayib ne nga xamne bu ñuy lim juma yi rafet yi ci aduna bi ne ñu limaale mazalikul jinan ne serigne bi tay nak awma dara wax nee xanaa di la gërëm nee di gërëm ñi nga fi wuutu nee ndax ñoom ñëpp dañ ma jàppale won encouragé ma nee ngir ma sottal ko nee damay wax ne liggéey Masaalikul Jinaan liggéey ñëpp la ne waaye kon ñun waa communauté Mouride. ne war nañoo am sag bu day ni Masaalikul jinaa ne bi ñu defaree loo xam ne. ne muy néegu yàlla. ne mu mucc ayib nag. ne incha allah ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala ay nit dinañ jóge ba bitim réew ngir ñëw seetaan si Masaalikul Jinaan ne ndax ay ñu ngi jógee bitim réew di seetaan mosquée Assane II ani ak yeneen i juma ne ñun daal ñun tabaarakallaaw ñun askan murit ñun ñi nga xam ñooy yoon bi ñun ñëpp war nañu am fierté ci ji Jinaan ne man nag lépp lu ma defal Serigne Touba ne ak lépp lu ma defal Touba it xem naa ko nee xam naa ko nee bu nu yàlla dimbale ba nga noppalu ne dinaa la nuyu si ne waxla la yeneeni xalaat yoo xam ne ne yaakaar naan dina baax ci tuuba ne te dina baax ci yoon wi ne loolu boo ma ci joxee ndigal rek ne ma jublu ci loolu ne yal na yeex ba ma wuy ci sama borom ne man loolu rek la japp ne ab taalibe la rek bu wara dox ci yoon wi ne ngir rek ngir bëgg am ngeureuma serigne Bamba. serigne bi nee na mi ngi lay dolé sante bu baax di la gëreum ci nim la ko daan waxé naka jek ndax yow président serigne bi nee na xam nga li nga xeq ak yoonu murit xam na li nga japp sa ak serigne Touba. ndax nguur boole wala ak yoonu murit mu ne loolu nag sëriñ bi jàpp na ko te sa tànk tey yii firnde la ci ndax wàccoon na la sax mu ne boo yónnee woon mu jàpp ne teew nga kon mi ngi lay sant bu baax kon ci ànd bi nga xam ne lii nga xam ne yéen a ko bokk muy ubbi teg jumaa ji kon serigne bi dafa wax ne mune na sa xel dal bu bax ndax serigne touba dafa waxone ne anna man wasalani nii laa laa laa yu xaridu duni wii fa inna yakunu mi innal muxarabina wa anna man wasalina li dunya faxat fa inna allaha mu yukrimuhu maa daama hayukum nee na képp koo xam ne ñëw nga ci man te àdduna taxulaa jug suñ borom dana la boole ci ñi ko gën a jege ku ñëw ci man nag te àdduna tax laa jug suñ borom dana la teral sa giirug dund mu ne kon képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa na nga xamne suñ borom dana la téral sa giirug dundu nee kon mi ngi lay fatali lam la waxon rek ba nga ñëwé Touba mu wax la ko ci làmmiñam ci li nga xamne jëfël nga ko yoonu murit te ñëpp xam ko muy lo xamne mom da koy fatali mu ne wax na la ko kérok mu ne kon lolu na nga xamne du ko ñim ko sekkali duñ ko faté kon cyant rek la la amel ak ngeureum ak dila ñaanal mune ñaan giit moy suñ borom degeural la gën la degeural katanal la gëna doli sa nga gëna wétal réewmi lu yagg ndax lolu bëgg-bëggam la itam mu ne la nga ko waxoon bi campagne bi jub mu ne dégg na ko bu baax lam la ci waxoon it foofu rek la ci nekk mu ne ndax sëriñ bi dalaa waxoon ne mën ne daf fee nekkoon ak ay kilifaam sañu ta def sañu ta dindi léegi nag ndegam yàlla def na moom mu nekk fi te xam ni nga demee ci moom lépp loo xam ne lu ko war la sa diggante ak moom nee na mi ngi ci te mi ngi ci bu baax a baax mu ne te gën la ko gën a leeral ba nga gën koo xam mu ne kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax waxtu wi dafa jot te sëriñ bi ñàkk lu mu bëgg a wax ak yow waaye mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci jëf yi nga xam ne jëf nga ko ci yoon wi jëf ko ci réew mi ndax lépp looy jëfal réew mi bu dil Touba it cant gi war na ko ndax sëriñ Saaliw bi mu fi toogee màggalu Touba ga njëkk a jàll ba gàmbug Tiwaawoon accès dafa yónnee ci ndaw ne lépp loo defal Touba na nga ko fa def mu kon loo defal réew mi rek moom nga ko defal te réew mi sa jëf ñëpp gis nañ ko kenn fàttewu ko jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah